asalaamaaleykum euh, gannaaw di leen sant ak di gërëm ndax yéen yéen ay jottali yéen ay siiwal ji fu baax yi kon seen liggéey am na solo lool waaw euh, tout tànk yooyu ngay wax daanaka mën naa wax ne euh, fi ma jaaroon man lañ la toppaat ndax l'an 2000 maa fi jëkk def sa setal fii ci koñ bi dem jënd samay peel yeew ak sama njaboot

kër gu set saa set day tax nit ñi wér te ku setul sa kër setuloo sa xol lu ñu la dénk dina tilim te setal dafa bokk ci xetu jàmm yàlla bu kawe tout temps que ñuy def nag loolu ñuy def noonu day wane ni soo dëkkee ci gox ci am réew bëgg sa box sa réew bokk na ci xetu jàmm yàlla yi ndax xubul watan minal minal iman bëgg sa réew bokk na ci jàmm yàlla kon fi nga dëkk soo ko bëggee koy feeñalee mooy da ngay fexe ba mu set te loolu li ñuy wax citoyenneté mooy euh, kenn ku nekk euh, cité ba nga nekk mooy nga nekk fa citoyen da ki cité la koy defar pour njëtt yi am fa benn bi mooy lu ñuy wax salubrité publique mu set benn bi mooy tranquillité benn bi mooy sécurité mooy luy dalal xel di setal di dalal xol euh, nit ñi seen kaaraange am loolu mooy moo tax ñu cité moo tax citoyenneté benn bi nga xam ne ker bi nga xam ne moom xale yi féete tey mooy setal boobu noonu mooy indi salubrité waaw set sa xol set sa yére set sa réew set sa dëkk sa dëkkuwaay. waaw gis waaw xale yi euh, dama bëgg ñu xam ne ñi ñuy roy ñi ci ëpp. seen cosaan ñoom soo ko seetee euh, dañoo set soo demee Suède wala Norvège wala nga dem Finlande man dem naa euh, Luxembourg bi ma yow fajar dama dégg ñu ne euh, dëkk boobu noonu d'abord c'est une ville piétonnière xam ne oto du fa daw dañuy dox Euh, ma gis ni ñu ne palanteer yi ni ñu fa defee ay fleur ak yooyu dañuy concours pour que gën a set kër gën a rafet kër loolu noonu bokk na ci yi nga xam ne bi yonent yàlla sallallahu alayhi wasallam ak yonent yëpp bëggoon nañ ko ba yàlla tuddee ko xuddoosu mooy euh, le saint la propriété euh, kon xale yi jamono yi li ñuy roy ci li jógee bitim réew dañu war a bàyyi li nga xam ne bii tegginuwul gënul baaxul. ñu woon ko ginnaaw dëgg ma jëm ci lu baax ku rëy da ngay lu baax kon xale yi seen euh, télévision ak internet diñ ci war a gën a bàyyi xel mooy li nga xam ne lii day defar seen dëkkuwaay dafa seen tey defar seen ëllëg waaw loolu mooy citoyenneté loolu mooy li nga xam ne bii mag ñu mel ni ñun loolu ñu digal suñu doom ak suñu ndax ñun jaar boobu jaar boobu lu ñu jaar judd ci réew mi tekkee ci réew mi jël suñu àddina yëpp defar ko ci réew mi liggéey ba retraité ñëw toog gis suñu doom yi aw tànk yooyu dañu leen encouragé bi nga egsee léegi nii gis na benn xale bu jigéen bu ñëw ci sama wet juróomi at la am dama ni jox ay tàngal eh, eh, koo si jox tàngal dama kan so jëlee tangal bi so ko mëccee ba pare kayit bu ko sànni ci kër gi ko sànni ci biti demal ba ci poubelle bi ci gannaaw nga sànni ko fa loolu mooy bañ a tilimal eh, set doo ko jangal xale so ba am juróom fukki at déedéet da ngay bàyyi ba mu nekkee tuut tànk ñu koy jàngal ci kuusam ak mu bañ tufli ci mbedd bañ a sànni kayit ci mbedd ba nga xam ne su ëllëgee da koy tàmm ndax seen culture seen manière d'être léegi soo demee Singapour nga xam ne c'est une ville c'est un pays réduit à une ville Singapour soo fa sànni kayit ci mbedd mi soo siggee ñu la foral soo yéexee ñu alamaan la loolu mooy royukaay roy bu baax. maa ngi leen di fay waa Dak Médina di rafetlu encore seen teewaay fii ñuy daje toujours ci activité yi xew ci biir Médina. lu ma rafetlu la wax dëgg yàlla te defe naa ni wax naa ko waxati ko ñu may delloo njukkal ngeen yéen. waaw mais xam nga euh, je crois que ni man moom ku ma kuy seetlu ci événement yi xew ci Médina ci essentiel da nga ma ciy séen parce que dama gëm rek wax ji chaque jour ma wax ko duma ci tàyyi Médina suñu ndono maam la ñu bàyyi ko suñu loxo ñu nit ci liñ ci mën ñu taxaw ci pour fexe. Euh, même buñ ko mënul def namu mënon demba au moins ñu mëna garder équilibre bi donc yu melni nak dafa bok ci pa yoyu manam set setal euh, waxtane set jéem régler suñu cadre de vie dafa am solo motax sa bu ma ko yëgee ak luma mënti def rek dama ne ci dëkk bi dina ko bayyi ñëw teew ci pour vraiment le bien-être de tous je je crois que ni waxna ko semaine ba la ñu génn di wax ne euh, dafa am lo xamni manam waratuñ ko fowé xeyna amuñu moyen yu ñu joxe jeunes yi ay liggéey wala wala mais salubrité bi nga xamni mo nek ci suñu gox yi nga xamni ne daf ñu concerné concerné suñuy yaay concerner suñu dom concerner ñun personnellement dafa wara nek énergie lañ ci wara def pour que lolu am malheureusement euh, xeyna dimanche matin yi la wala en tout cas euh, war nañ benen beneen wala benen forme de communication pour que gaay gëna comprendre que ni li ñuy dox lepp li mo jëpp solo parce que c'est le début du commencement manam set setal ba gox yi set après nag nit ñi mëna am wër ak tal pour mëna dem di waxtané yenen ak yenen ak yenen malheureusement des fois da ngay gis ni ñi dañu ñëw ñi duñu ñëw mais je crois que ni c'est déjà un un un un pas dank dank la medina gis na ni nit ñi sax comprendre nañ légui ne diversité yeeg yoyu munta ñak mais après dañu wara dajé autour de l'essentiel donc ñu melni yeen ak yenen presse locale yi je crois que ñu ngi ciy jouer rôle bu am solo moy que ni doomu medina yi xam ne li leen boole moo ëpp li leen xaajale ba nga xamni dinañ jéem a daje pour waxtané medina té xamni moy suñu jamm ñun ñëpp moy suñu intérêt euh depuis mm, ñu lancé ko commencé ko ci cours yi ñi joxé ak yoyu je ne cesse de le de d'applaudir de magnifier ces choses parce que au-delà de dem jangui école et tout et tout nit da nga wara am formation jamono doy dox bu ñëkk dañ daan dem ay as jaag comme j'ai dit di dem ay geej ay yoyu tey jii nii àdduna tollootul fofu, vitesse mentale bi dafa dépasser nit ñi tok ci ay roq donc yi ñu da fay da fay préparer nit nit bo mun nga jang mais do am xam-xam donc yu mel ni dafa lay renforcer ba nga xam ni euh, di nga mën a génn servir sa gox suñu jeune yu bëri tey génn nañ école wala wala wala condition yu méttee tax ñu génn donc bu ñu amee ñu leen accompagner derrière ci cours yi ci di leen wax euh, le sens de la salubrité di leen wan acte yi je crois que ni yooyu au fur et à mesure doo gaaw a dajal nag mais ndànk-ndànk xam naa ne di nga mës a am par 10 par 20 30 ba un jour nga mëna am un un grand nombre de jeunes yu comprendre la situation. maa ngi remercier wat encore wa Centenaire Gibraltar di remercier wa medina parce que gis naa yeneen doomu medina yu dekkul Centenaire Gibraltar ñew teew ci lolu té je crois que nous loolu rek lañu soxlo moy na ñëpp di ñew ñuy andando di yëkkateendoo di dorando, parce que loolu rek moy jàmmu Medina, et je vous remercie vous aussi wa Dak medina yalla na len yalla taxawu yok leen parce que xamna ni yene ngi jéem pour faire def ci mentalité à Médina l'union fait la force et c'est important. merci président. Euh, Assalamu alaikum, ngi de Betty Anne nek présidente euh, finance Bouclas. classe. Euh, en fait nous avons fait un forum sur l'instabilité l'environnement sain pour sensibiliser nit ñi si nous ñu fait un ak

Et une deuxième fois on va faire appel gars yi parce que c'est pour leur santé et pour leur développement initier les des bonnes habitudes pour nous. xam donc cette salle, bi c'est pas pour euh, waa Gibraltar c'est pour nous. la donc dañ see war a góorgóorlu bu baax ñuy woo ñëpp ñu la prochaine fois c'est beneen set bi parce que un intérêt ça y va de leurs intérêts. waaw comme nous ñuy wax rek xam nga nit des ak nit pax léegi ñun on va faire de nos mieux pour sensibiliser leen rek wax lan ni tax nit ñi di war a set setal yaa ngi dégg di dëkk si environnement bu sain di sol yëre yu set di di dekk alimentation bu sain et tout ça donc ñun loolu rek lañ fi pour sensibiliser et rien d'autre wa léegi pour ñu mon apporter ben touche boo xamante ni boo léegi de dinañ ne c'est grâce à classe que lii ak lii mu am loolu rek a ñu tax ah juste di remercier ñëpp nag.

presse bi nga xamantene nous ñoo ñëw duñu defal interview bi muy Dak medina Nous nuyu aussi l'ensemble des autorités et personnes jeunes femmes de la Médina nous nuyu à travers mon nom Moda Diagne en tant que président de l'association jeunesse consciente de la Médina mais aussi représentant de l'amicale des associations de la Médina membre de l'association ou bien de la fondation même classe donc je suis ici taille en tant que membre de la Fondation Classe, mais aussi représentant de, représentant de l'association, l'amicale des associations. waaw loolu mom mun nañ ko xaar ci citoyens parce que tay jii Sénégal dafa metti métier. on connaît le secret dont la population vive muy li nga xamantene moy nit ñi mën nañu wax waye bu déssé lu dul jëf dafay metti donc tout début est difficile mais l'essentiel c'est de faire l'acte xam nga tey jii bu ñu baa jàppandi ne bu ñu ñëwee ñaari nit bu ñu commencé rek bu ñeneen ñi ñëw rek c'est pas bon du dem donc lépp loo gis compte boo gis si benn lay commencé ñaar bu ñett ba ñeent tey jii on a fait un premier pas liggéey bi des na ba si kanam donc la population sera avisée ñoom ñëpp dina leen gën a woo inclure leen si ñoom ñu mën a déglu dugg si affaire bi incha allah effectivement pour loolu nous sommes actuellement avec la fondation classe nous ngi des ay projets dans le futur Nous avons a def visites de proximité nous xamante dañuy monter ay équipe yoo xamante ne dañuy dugg ci biir koñ yi de sensibilisation conscientiser population nous yi nga 7 parce que si jii bu leen conscientiser wul tamit du avancer il faut que ñu jëm leen sensibiliser nous le tout ñu mëna agir conformément à leur raison d'être C'est pourquoi nous ngi préparer lolu créer ay visite de proximité avec la population de la Médina pour ñu nous veillions à veiller nous li nga xamantene moy suñu milieu environnemental. waaw man sama dernier mot c'est juste que damay encore une fois la population médinoise si je me dis je suis citoyen ou bien je suis individu mais évoluer dans l'environnement. Ce que je dois faire, le premier acte, c'est quoi Je dois faire le milieu où je vis. Parce que aujourd'hui, si je suis là, si je ne le fais pas, je sais dëkk moo xam ma fiy liggéey moo xam ma fiy yend moo xam ma fiy waxtaan wala moo xam ma fiy jaar mais fi nga xamante ne foofu laay évoluer dama ko war a defar ba nga xamante ne tey képp ku ñëw gis ma mën maa naw tey jii l'homme n'est rien mais ce que la société fait de lui moo koy valoriser donc yow fi nga xamante ne foofu nga nekk jéemal def le tout ba lépp loo fi def tey nit ñi mën laa jox cër tey jii loolu la olof di wax naan uude nu mu la fekk rek noonu la lay ëwalee tey su ma ñëwee sama kër toog teg sama mbalit sama buntu kër jaxasoo keneen bu ñëwee lekk sànni donc si man la ko gisee donc le premier acte c'est quoi ñi nga xamante ne ñoo nekk si biir Médina muy góor di jigéen di mag di ndaw cousine carrément que tu as le devoir de nettoyer tu as le devoir de participer au développement de ton de ta commune donc nag yow y xam ban acte humanitaire ngay mais la première chose moi lan na nga jéem a setal de parce que si bëggee am wér il faut nga set soo il faut donc la set setal bi c'est important encore une fois nous woowaat la population médinoise première autorité su premier magistrat de la Médina le maire de la commune de la Médina M. monsieur Bamba Fall di ko avec toute son équipe di woo aussi toutes les associations de la Médina ku si nekk tey ak foo munti évoluer ak secteur boo munti nekk ku si nekk là, nga xam ne fa ma nekk dama ko war a parce que la Médina dañu dañu perte lu bëri dañu perte beaucoup de si nga li nga xamante ne mooy environnement cadre de vie La Médina bu on disait que Médina c'était la commune la mieux lotissée au niveau de, du Sénégal. Mais aujourd'hui, Medina a perdu son image dans l'environnemental. Donc on dit assainissement, nous avons fait des choses, mais aussi nous insister pour monsieur le maire mu dimbali ñu ñu gaaw terminer li nga les travaux d'assainissement dans la population avec ak jeunesse bi mën dem li nga les nettoiements ainsi les les reboisements ainsi de suite donc je les remercie encore une fois de féliciter la fondation CLASS à travers le président Janon Bokande et aussi le président de cette commission environnementale qui est mon frère, mon ami, Cheikh Ibrafa, qui a fait un travail acharné et exceptionnel vraiment. Je remercie encore une fois l'ensemble de l'équipe de la fondation. Je remercie aussi sa presse locale comme toujours, Dag Medina, Dylan Warne, Tchakao Inch'Allah, Dina Merci beaucoup, Djagen Salam alaikum, Lamine Diop, membre collectif des jeunes de la Medina ce que je veux dire, c'est doon citoyen simple ba pare avant benn étiquette di ñëw lu waa Médina wax lii jëmale gox bi kanam rek ñun ñu ngi ci. léegi nag yàlla def tam ñu yow benn collectif ba nga xam ne collectif des jeunes bu ñu ko waxee mooy lépp loo xam ne ndaw Médina yi la kon lépp luy jëmale gox bi kanam rek ñun dañ fa wax a teew looloo tax ñu ñëw fi nii. waaw mobilisation bi man ni koy waxee pour man di mën na def dex bu dee fukki nit sax mën nañ mën nañ seetal gox volontaire rek la laaj léegi nag. dañ nekk ci dëkk boo xam ne peut-être ñëpp gaawuñu jugandoo peut-être ñenn ñi foog ñuy xëcc ñenn ñi ñuy ñëw mais nii ñu ko commencé nii soo xoolee am na yeneen événement yu fi njëkkoon xam dañuy gën a néew ñu ngi yokk ñu ngi yokk te ñu ngi jéem jeunes yi ngi jéem di créer affaire de gauche à ku nekk ngi créer benn affaire yàgg-yàgg dina mës a ñëw mais du yomb mais ñu ngi ci ñu ngi ci yoon bi yàlla baax loolu laal loolu laal doon wax léegi ne la soo xoolee ñu ngi ñu ngi événement buy am ñu ngi gën a yokk maanaam ñu ngi gaa commencé xam ne ñun ñoo mën a defal defal suñu gox ñun ñoo mën a dimbalante suñu biir moo tax léegi association yi soo xoolee ñoom ñëppay boole ku xew la yeneen association yi ñëw fekk la même bu dee ñaari membre yi ñëw ñëpp dañ la fekk si ñu ngi sotandoo di xàccandoo di dóorandoo parce que léegi xam nañ ne dooy affaire de politique mooy defal gox ñi dëkk ci gox ñoo war a defal seen gox ba pare ndaw yi en plus ndaw yi te Médina day Médina wax da bëri ndaw yoo xam ne dañu toog toog bi moo ëpp jug léegi nag yenn ndaw yi ñu ngi jéem a xëcc ñenn ñi du yomb comme ni ma la ko mais yàgg-yàgg dina ñëw ñu ngi ci yoon bi te xam naa ne yàlla baax na ko mooy yi action yi dafa war a gën a bëri ci domaine yëpp nag boo waxee seet seetal après ñeneen ñi dem ci santé ñi dem ci éducation ku nekk rek semaine bu nekk rek waxatuñ toog war nañ xool benn côté parce que fii li doxul dafa bëri mais bu ñu àndee nii jub ci social bi dem ci éducation bi dem ci santé bi yëpp bu ñu demee rek dañ ci gis suñu njëriñ te yaakaar naa ne lii classe def nii tey yombul

la partie euh, invité population pour conscientiser len donc tay dañu nek en pratique rek ci terrain bi euh, wër Gibraltar ak Centenaire def investissement humain ba bëggone euh waxtaanal ak habitants yi riverains parce que boo xoolee laaluñu trop kër yi espace yi nga xamné dafa am ay habitation dafa am ñu fa on a surtout euh, laal ay espace neutre donc espace neutre juste pour un exemple habitants yi ñun bu ñu defee exemple espace neutre yi yéen boo leen defee seen buntu dinañ à la fin de la journée donc sensibilisation bi c'est vrai que démb la commencé mais tey sur le terrain ak pratique bi looloo doon objectif journée bi tey pour ñu mën a am gars yi tam bu subaa ñoom tam ñuy à seen buntu kër di nettoyer seen buntu kër. waaw sensibilisation comme nous koy wax une question d'engagement une question d'éveil parce que la question de l'environnement c'est une question vitale donc environnement képp kuy wax air képp kuy wax ndox bu ñuy naan képp kuy wax suuf suuf bi fi nga xam ne suñu suñu mbéy bi foofu lay c'est très important qu'on puisse respecter ces trois ces trois éléments là donc sensibilisation bi dafa yaatu te comme on dit c'est pas du jour au lendemain donc l'essentiel c'est de pouvoir déclencher benn conscience boo xam ne nit ñi dañuy am gestes yooyu nga xam ne ay réflexes petit à petit peut-être mënuñu ko régler tey mais petit à petit nous ñu am euh, éveil pour nit ñi commencer xalaat ni suba bu ma polluer ndox bi du ma am jeun bu am nourriture sama air bi bu polluer peut-être après dina problèmes respiratoires ak donc c'est très important donc sensibilisation on a on a d'autres programmes qui xamné dañ développer encore plus sur le temps sur les pluies environnement pour mën consolider li ñu commencé demb donc demb ak UCG yi ñu amone comme partenaire yi doon animer euh, forum on a parlé d'un comité de quartier donc comité de quartier bi interpellé différentes organisations yu nekk ci quartier yi muy ASC muy bàjjenu gox muy chef de quartier Nous sommes ensemble avec UCG Wartan. donc il faut que nous démarrer la sensibilisation bi si vous boo sa biir kër wala nga dellu sa association nga mën commencer yow tamit sensibilisation donc petit à petit de bouche à oreille euh, surtout en montrant l'exemple aussi et en étant très résilient je pense qu'on va y arriver ça va pas être facile euh, ça va prendre du temps mais l'essentiel c'est de pouvoir répéter répéter répéter répéter pour que nous gens puissent am ça. man si yow vous être donc gestes des gestes de tous les jours yo vous engagé pour éradiquer euh, insalubrité non côté engagement bi engouement parce que le euh, ministre du musique lañ wala ni parce que je pense qu'on n'est pas conscient de de combat donc il a parlé de de l'Afrique étant le pays qui qui qui pollue le moins mais qui est le plus affecté donc le monsieur on a moins de moyens encore plus pour faire l'eau donc l'union ñu mën faire prévention donc prévention c'est mooy bi euh, créer esprit patriote bobo parce qu'à la fin de la journée nous devons notre environnement suñu survie en tant que humains, humain les sauvegardons. sauvegarder donc conscience il faut que nous soyons ci nit ñi pour ñu xam c'est quoi les réels enjeux c'est pas juste de gagner ci mbedd bi di et tout et tout il y a des conséquences Nous avons ay nit yo mauvais environnement nous ñuy les maladies respiratoires et tout et tout et c'est des choses yo xamné ne Nous ñi xamuñu ko parce que y ben une partie éveil conscientisation Nous xamné war nañ ko def peut-être ñu organiser une discussion sur les conséquences euh, de tous ces problèmes là mais on doit même plus parler de de l'insalubrité ou bien de la saleté on doit surtout avoir un langage positif donc la salubrité le challenge de la salubrité la propreté Il faut que nous ñu tourner esprit pour nous commencer xalaat positif bobu baye xalaat négatif bi si li lépp li nga xamné dafa tilim fofu pour man fofu fofu la combat bi nek waaw donc développement durable pour man xalé yi lañ koy commencer wé qu'on puisse déjà avoir des discussions dougal ci xalé yi ñu approprier lolu c'est des générations yo xamné après ñom ñoy ñëw yeneen générations yi di ñëw ñu am réflexe yooyu ñu am geste peut-être pourquoi pas nous associer wala créer ay jumelage avec des pays yo xamné ils ont réussi à à à à gagner ce combat-là nous ñëw fii ñu jël fi ay ay ay ay ay jàngat ñun ñu dem foofu jëlee fa ay jàngat surtout pour jeunesse bi ñu créer échange yooyu donc ñoom bu ñuy màgg ñi di ñëw seen ginnaaw dinañ leen inculquer yooyu dinañ leen inculquer valeurs yooyu pour mu mën rester dans le temps pour que ça soit durable donc environnement c'est un un élément clé pour le développement tant que environnement bi baaxul rek lépp lu ñu bëgg ci développement day day compliqué waaw non on n'exclut pas on ne discrimine pas mais c'est vrai que a une yi ak yenn yenn yenn leçon yi si xale yu ndaw yi si école yi primaire yi école de football yi yenn espace yi nga xam ne xale yu ndaw yi foofu lañu nekk le message sera beaucoup plus accentué là-bas n'empêche ñi nga xam ne tam peut-être du ñu wax ni on va les exclure on va toujours discuter on va toujours partager parce que ñoom tam ay exemple lañ loo wax ak xale yi ñu gis leneen li nga xam ne mag yi ñi ñu koy def dina am impact boo xam ne dina contrer ñun li ñu bëgg a def donc on on laisse tout on laisse personne on, ratisse large, on parle à tout le monde, toutes les générations, mais l'accent sera surtout sur ces jeunes. Parce que nous, suñu temps day jeex nous ñooy nous les yor monde comme nous, ma koy toujours quand on veut faire de l'Afrique du Sénégal un pays développé l'environnement sera très critique pour qu'on puisse euh, y réfléchir moyen front propre cotisation des membres ndeki baa section féminine section féminine bi ñoko journée demb yi membres yi ñoo cotisé 5000 5000 10 000 10 000 ku nek li nga donc c'est comme ça qu'on a réussi à faire la journée d'hier on a dépensé presque 300 000 francs si journée demb bi tay bi donc c'est les femmes braves de la section féminine yo xamné ñoko def donc pour moi, il n'y a pas de compétition à la Médina on n'est pas là pour compétir donc bu ñu amee un groupe de jeunes bénévolement désintéressement boo xam ne dañ koy wone pour mën a développer pour mën a defar pour mën a liggéey lii je pense que bu ñu amee ñeneen ñoo xam dañ ñuy dooleel ça va être un combat beaucoup plus simple xam nañ ni combat bi dafa diis donc bu ma nee amul compétition mooy kii def na lii man damay def lële wala kii bi wootewee man du ma ñëw je pense que bu ma jéemee teg foofu compétition bi rek je vais me limiter man damay xol fu sama potentiel yem duma ma romb du romb Lamine Lamine def na 10 ma def ma def 11 rek taxaw foofu peut-être mën na 20 mais dama def 11 rek parce que xamna ni gagné na Lamine mais esprit bobu pour man dama ko gis ci ci deux journées ak ci quelques actions yi yo xamné comportement militant instant bi foofu la tollu té pour man li ñuy woote bu dee la ci ñun képp koo xam ne yëkkati na xeer pour teg ñu ñëw jàppandoo xeer bi teg ñu xam ni compétition boobu ça va nous mener nulle part ñu mën a investir honnêtement, avec un total désintéressement pour mener avancer. On n'a on a pas d'accompagnement, que ce soit un accompagnement matériel ou un accompagnement financier, à Mounisidara, de, de, de qui que ce soit. Euh, comme j'ai dit, gars ou ou fondation bi on a bien entendu des partenaires euh, associations et euh, et, des amicales des associations de la Médina euh, y a une association ag 5 m une jeunesse consciente de la Médina ils se sont investis donc nous leen di remercier tamit mais je pense que c'est juste nous dans nous parce que nous avons des membres de xam classe donc nous ñoo investi. investir mais euh, tout ce qu'on fait d'habitude administrativement on notifie, on envoie les lettres, on envoie les invitations, on envoie tout, on a les décharges. Mais pour moi, nous, notre rôle, il faut que le mënuñu forcer kenn mu def dara quelle que soit la personne quelle que soit la personnalité donc on a pris un engagement duñ ci xaar kenn liñ ci war a def dañ ko def ba mu jeex loolu daal mooy suñu suñu position ku ñëw baax na ku ñëwul tam on va avancer. di di di euh, wax ak jeunes yi rek pour ñu xam ni combat bi ñu ñu ñu am tey c'est surtout leur combat ñoom ñoo fi nekk suba ñoo fiy euh, jànkonteel difficulté yi ñu am tey bu ma sañoon bu subaa yenn action yi sax ñu si fekk dina fekk ñu dépasser niveau bi dina fekk ñu xalaat leneen loo xam ne c'est beaucoup plus productif loo xam ne day yokk parce que instant bi si li ma gis dañu tardé on est en train de corriger ay problèmes yoo xam ne à la fin de la journée du régler sama situation économique du régler situation économique pays bi donc qu'on puisse déjà éradiquer ça et qu'on puisse réfléchir à comment construire notre pays, à comment avancer, à comment construire notre commune, c'est plus important. Donc il faut que nous ayons conscience pour xam ne avons une mission nous donc nous faisons fekk ay mag yoo xam ne ñoo fi nekk di sonn suba ba ngoon ñu toog rek di seetaan wala ñuy door à 11h nous avons am esprit engagement boobu nous am esprit consistance parce que ce moo ñu si de donc je n'ai pas eu sandi message boobu di remercier encore une fois tout le monde di remercier la presse bien entendu pour nous permettre d'avoir cette couverture euh, de remercier Fondation Classe pour bañ rek merci beaucoup. hey xolal sa no neexul yéenam bilaay sa no neexul yéenam xolal bu mënee na nga def kajoor di wax wal di wax bo mënul na nga bàyyi kajoor du wax wal du wax waaw moo ko def. e xolal e sono daal yaa def yaa def dañ koy wax xolal yaa liggéey lu baax ñu waxal la ko sono bu kande lay way ey sono daal yaa ko def yaa def dañ koy wax xolal yaa liggéey lu baax ñu waxal la ko loolu dëgg la